sant ak ngërëm daal la ñuy def di gërëm président de la république di féliciter ministre Mansour Faye ak ministre de la santé ak ministre de l'intérieur ci seen politique nationale baax bi ñuy def di remercier tamit conseil municipal lu Médina nest pas liggéey bi rafet na ñoom grand la ñëpp jàpp nañ ci Seydou Gueye dañu lay gërëm bu baax di gërëm responsable politique yëpp nag ñëpp ci taxaw pour Médina doon benn ñu ànd xeex mbas mi te yaakaar naa ne ci fan yi gis nañu ni mu reculé Médina ndax ci juróomi communes yi gën a touché la ñu bokkoon mais bi ñu amee sunu ndimbal jagleel ko ASC yi ñu ngi def liggéey bu baax ci quartier yi jël relais communautaire yi yóbbu leen tamit ci marché yi boulangerie ak lieu public yi def nañ fa liggéey bu baax dem ci école yi aussi jox leen matériel bu doy ñu ngi ciy am yaakaar boo seetloo cas communautaire yi Médina yi sax par benn benn ngay dégg léegi donc sunu malade yi tamit 90 pour cent yi wér nañu donc ñu ngi ñaan yàlla ak ay ñaan bu ñu ko amee yàlla mënuñ cee gën a dimbali donc c'est moment de terre les activités politiques, soulager l'État parce que le corona est en train vraiment de prendre des ampleurs et une allure infrénable. Raison pour laquelle je salue l'action du ministère de Guy qui gère la prévention au niveau de la Médina.